wax leen yéen ñëpp alhamdulilah. na leen. muy aayatul kursi yonent wax na ne képp ku sax ci jàng aayatul kursi yu gannaaw julli gu nekk dara du dox sa digganteeg ak jànn lu may dee wax na ne boo demee booy tëdd ci salal nga jàng aayatul kursi yu yàlla dana la wattu ci seytaane wattu ku nekk ak ci néeg wattu sax néeg yi nga xam ne kër yi nga xam ne ñu ngi la wër yontu bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bàyyoon eh, tàndarmaay sarax ci loxo abu hurayrata muy koy denc ba guddi jotee am sàcc bu ñëw pour sàcc abu hurayrata jàpp ko mu ne ko maa ngi lay leen ci yàlla bama dootuma del siyaat abu hurayrata ñëwal yontu bi sallallahu alayhi wa sallam ci suba ba mu agsee rek yonent bi ne ko yow abu hurayrata nu sa jar-jar ba def nu sa waaja def mu ne ko daf maa defal ne dootu delsi yonent bi ne ko waaye dina delsi ci guddig ñaareel gi abu hurayrata gémantu sàcc ba delsi at ba mu bëggee jël ci sarax tàndarma ji abu hurayrata jàpp ko mu ne ko yow danga maa joxoon defal ne dootu ñëwaat léegi nga ñëwaat mu ne ko jéggal ma rek ba ma dootuma delsi mu bàyyi ko ba mu xëyee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko abu hurayrata nu sa jaar-jaar ba def mu ne ko fa maa dexal ne dootu delsi yonent bi ne ko dana delsi juddi ñetteel bi mu delsiwaat ba mu commencé ñëw di tibbu bëgg a sàcc abu hurayrata jàpp ko ne ko yow yow xuruj kan nga bët bu set nga joxe kóllëre goo xam ne doo ko sàmm ne doo del si sa da nga del siaat mu ne ko jéggal ma rek danaa la xamal loo xam ne boo ko waxee boo ko jàngee rek yàlla musal la ci seytaane mu ne ko loolu lan la mu ne ko ayatul kursi ba mu xëyee mu ñëw yonent bi sallallahu alayhi ne ko lu sa jar-jar ba def mu ne ko daf ma xamal dara ne loo xam ne bu ma ko jàngee njëkk may nelaw yàlla wattuma ma seytaane moom mooy ayatul kursi yonent bi sallallahu alayhi ne ko sadaqaka wa huwa kazubun neko wax na la deug waye da dafay fen da dafay fen gi moy mom bu gëmoon yàlla gëm ak gu toll nonu mom du def lam yi def nonu fen danañ ko wax ci lo xamne ni du ne lu huté ak lu xam la waye dañ ko wax ngir huté ak li nga gëm ida jaaka almunafiquuna qaalu nashhadu innaka la rasulullahi wallahu yaalamu innaka la rasulu wallahu yashhadu inna almunafiqina la li ñu wax dëgg la yàlla ne dëgg la ba pare yàlla ne dañuy fen mooy ne ñoom la ñu wax gëmuñ ko kii tim bu gëmoon lii muy wax ci ayatu kursi yi gëm loolu kon dana topp dana topp yàlla kon du du sàcc wala bu demee ba def ko benn yoon kóllëre ñetti yoon ngay joxe kóllëre di ko fecci ko kay ku gëm yàlla du ko def bàyyi ne ko tudd jàng ayatu kursi yu ci aajo ñetti téeméer rek fukk ak ñett limi adadu rusuli adadu jeysh ahli badrin yàlla dana faj sa aajo aajo ju mën a nekk ku ko jàng juróom fukki yoon njëkk ngi tëdd yàlla dana la musal ci jinne tudd nañ ci ay ngëneel yi moom ayatu kursi yi ngëneel yu bëree bëree bëri dañuy wax ne dafa am waay joo xam ne dañ ko waxoon ne ko ayatu kursi daal boo ko jàngee bi ñetti téeméer rek fukk ñett rek sàcc du fa dugg dara dufa fa dugg moom xamul sax ayatu kursi muy xëy rek di wax ayatu kursi ayatu kursi ayatu kursi am ku ñëw bëgg taaj ci bitig bi mënta ak ci bitig bi ñu koy laaj ne ko yow loo doon jàng mu ne ayatu kursi ne ayatu kursi lan la mu ne ayatu kursi ayatu kursi pas-pas baa ko dimbale laay karaaha déet forcé fi diini ci diine